équipe équipe sax mën na fa jaaree sax euh, wàcc est-ce que scénario yooyu yëpp yéen a koy xalaat ba nga xamee ni du leen mën a gàllankoor damm seen laaf. waa AS Pikine amul choix lu dul jouer les premiers rôles dans le championnat parce que on a la chance d'avoir un public magnifique. mais un public très exigeant. parce que euh, c'est-à-dire que AS mooy club boo xamante ne si le public. bu ñu joué wul sax bi beau jeu équipe adverse bi yenn saa dañ koy supporter. loolu Pikine rek nga koy gis parce que dañu bëgg de la qualité. mais c'est pas folichon pour le moment. <laughs> non c'est pas folichon c'est parce que lu ñu lu mën a nekk la mais en fait il faut que ñun ñu justement nous autres dirigeants ñu allier les deux allier la performance hic et nunc mais aussi allier l'investissement bi nga xamante ni si moo ñuy permettre sur la durée comme l'a dit Talla ñu mën a performer et sur tous les tableaux. Mm. parce que tey benn génération fut ak euh, peut euh, parce que moom moo toog nii benn jàmbaar et la chance qu'ils ont c'est que mën nañu tey jii sur les petites catégories des équipes nationales quasiment seeni joueurs a fa nekk et donc ça leur permet de se dire que ñun si on se projette sur cinq ans xam nañu yan joueurs ñoo ñuy fubalal ci seen seen club. Mm-hmm. tey taala xam na déwén après déwén dans dans cinq ans xale bi am 12 ans léegi dans dans cinq ans mu am 17 ans war nekk un grand champion xam na ko. Mm-hmm. parce que am na ko déjà dans son académie. et c'est c' ça qui nous permettra demain ñu mën performer sur la durée nga mën a xam ne tey boo même boo transféré x joueur ci benn année am nga tout de suite une relève bu lay permettre nga mën a nga mën a très bien alors Mamadou je vais quand même dinañ dugg tuuti si si si yenn point yu yu saillant peut-être mooy li ñuy parce que yaa a un public très exigeant et pourtant moi je trouve que l'AS Pikine très patient. <laughs> parce que Pikine quand même gañewul trophée majeur ci ci ci ci sur le plan national. absolument mais loolu nan nga ko mën a expliquer c'est c'est quand même euh, une incohérence quand même. Euh, pas tout à fait parce que aussi championnat bi dañ ko dañ ci nekk ak suñuy wujj yoo xam ne aussi bay dañu bëgg li ñu bëgg di investir xëy na euh, bay même peut-être plus que ñun li ñu mën pour le moment. Mm-hmm. et ñi nga xamante ne ci public bi comme ni ñu ko waxee léegi dañu xam football xam nañ ne tey jii nii am nañ un bu ñu war a combler. balaa nga naan naam da fay nekk c'est-à-dire nañu am ce qu'on avait eu en 2015 2014 2015 mooy comme li ñu am ci football bi yéen avant ñuy am aujourd'hui les infrastructures yi ñu am ay clubs si structuré nañu mm-hmm. am de formation yu produire des joueurs de qualité ñu mën a nekk à un certain niveau mais avant ñu ko doon am li ñu mënoon am rek mooy génération spontanée pour mën a am un trophée wala pour mën a yegg ci yenn niveau yi mm-hmm. en on l'a après année bi si topp effectivement ba malheureusement ça n'a pas suivi dañu wàcc. mais mm, loolu mooy indi. cest que soo amul. chaque euh, année presque da ngeen di changer seen. seen seen effectif. loolu nag li li permettre loolu dakk mooy ñu investir sur la formation. Mhm. nga xam ne sur toutes les catégories dañuy am ay joueurs yu performants. loolu soit tant que amuñu ko rek. xëy na du ñu yegg ci cette dynamique de victoire mais aujourd'hui mhm. on investit également ci recrutement bi. parce que loolu moo ñu permettre ñu mën nekk à niveau. on l'a fait cette année. Mhm. bi ñuy commencé championnat bi dama ne man jël naa 20 ma teg ko si recrutement bi kese. e voilà. aussi au niveau des salaires et cetera on essaie de de nous aligner. Okay. pour que joueurs yi aussi mën a attirer ouais. des joueurs d'envergure. Mmh. mais tout ça c'est des efforts yoo xam ne ñu ngi koy def nonobstant les projets d'envergure yi nga xamante ni am nañu. sur le long terme mais mais.